وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما خاته من قال إن الله مع أستغفر Ram ak sant go xamne day jógee fi ñun jëme fi yeen inshallah rabbi ñu jug ci daal ne ma ne ma di taxawat jëlat khalim gi saddawat wayat fi bay yu taralat jógee fi ñun jëme fi yeen ay way yu neex a neex a neex ngeen rek mané ay way yu neex a neex mu damp kus-kus dàq ñeex du tuuti dal di jeex xaar leen ma ñew garal ko man leen te bëgg leen fidèle ci yéen xooluma tam yëfi keneen lu waay joxoñ ngeen dagg ko te joxo ngeen li ne fi yéen kenn desul góor ak jigéen lépp lu baax jóge fi yéen jox ngeen ko sëñ bi jagle ko xam leen na kat yi xam yéen a kaw xam leen ne yéen a kaw te yéen a xam leen ne yéen a féete te yéen a raw ki karaw kenn mësu leen a féete kaw ku leen di def gisuma ko xam leen ne yéen a féete kaw

moom muy jariñ ak di lor ay xéewalam yu feesiku jébbal nu ko jagle nu ko yal na leen yàlla gërëm yal na leen sëñ bi gërëm yonent bi ak waa këram lu ngeen fi def nu sant ko yal na leen yàlla gërëm yal na leen gërëm yonent bi ak waa këram lu ngeen def sant ko barke bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar di jël nuyoo bi di ko jiital ci suñu loxo jëwlin di leen jaajëfal di leen ndokkeel ndax gis nañ taxawaay bi nga xamante ni ku nekk am na ko ci bisub tay bi suñu waxtaanu tay bi nag mu ngi doon leen ci dundu sëriñ bi laataa muy dem ci géej gi sëriñ Touba nag turam dëgg mu ngi nekk Ahmadou Bamba Mbacke waajuram bu góor mu ngi tudd Serigne Mor Anta Sali waa waajuram bu jigéen mu ngi tudd Soxna Jaara Bousso Serigne Touba nag mu ngi gën a ci jamono ci atum 1272 ci atum gàddaay yem ak 1852 ca Mbacke Baye Serigne bi nag ba mi am juróom-ñaari at la tàmbalee jàngale ca kuñ naan Serigne Tafsir Nume Mbacke nekkoon maamam bi sëriñ Tafsir noppaloo ca lañ ko joxee sëriñ bu soobe fa la àggalee jàngam ba sëriñ bi nag mu ngi jàngee xam-xam si waajuram bu góor sëriñ Mor Anta Sali Mbàkke daan na ko jàppale itamit lool ci daara ja daan jàng di jàngale bi sëriñ bi waajuram bu góor ba noppaloo nag moom moo continuer daal di yor daara ji naka noonu ci la sëriñ ci la buur yi sàkku woon ngir mu bàyyi daara ji daal di ñëw si ñoom waaye te sëriñ Touba da leen a xamal ni lépp lu dul jàmm yàlla rek soxloobu ko soo demee si xasida guñ naan xaa xasida guñ naan xaaloo li yarkal sëriñ ba tontu na buur yi nga xamante ni dañ ko doon wax jugal dem ci buntu buur ya ndax boo ko defee di nga am ay teraanga yu dul jeex sëriñ Touba ni leen man suñu borom doy na ma te doyloo naa ko te it soxlawuma lu dul xam-xam ak diine du ma soxla woo du ma yitte te it du ma du ma ragal ku dul suñu boroom sama borom mi nga xamanteni ni màgg na te it moo may ci Serigne Touba ci dundou Serigne Touba mën nañu xam tamit ci xasida buntu buntu tarixa yi nga xamanteni ni na am la woon na ngeerum borom ba lu ci melni lu ci xasida lu ci melni ni tarixa xaadir ak tarixa tijaani soo demee si xasida guñ naan manzani danga ko muy talif di di geureum mu ko mu ngi ko fay taalif di wax ni Cheikh Abdou Khadir Jeylaani gërëm na ko ak tamit Abdou Hassan gërëm na ko ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif gërëm na ko naka noonu ci la sëriñ bi naka noonu ci la sëriñ bi jotee ndigalu boromam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu sos yoonu boppam te mooy yoonu murit sëriñ bi nag mu ngi sos yoonu murit te déwén si nga xamante ni sa waa waajuram bu góor ba noppalowee sëñ Mor Anta Sali Mbàkke naka noonu ci la tasee daara ji nag daal di wax ndongo yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon képp koo xamante ne xam-xam moo la fi indi woon ak liggéey mën ngaa yeewee ko waaye de képp koo xamante ne nam ngaa àgg fa yàlla mën nga des ak man naka noonu juróom-ñaar ci ñoom ñoo fa desoon ak sëriñ bi ku ci mel ni Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Cheikh Abdourahman Lo Cheikh Massamba Diop Cheikh Ibrahima Mbacke Cheikh Mbacke Bousso ak Cheikh Sidiyal Muxtaar Mbacke naka noonu mën nañoo wax ni yoonu murid de ñu ngi koy sos ci atum 1882 Serigne Touba nag jaamu jaamu na boroomam lool wéetal na ko lool ba taxit mu am fa ngërëm ba nga xamante kenn amu ko ci doomu aadama yi sëriñ Tuubaa li sës màggal gi nag mën nañoo wax ni am na buntu zahir ak buntu baatin si baatin nag sëriñ bi ngir bëgg a xeetali doomu aadama yi ak tamit lislaam li mu demoon bay sooxee bëggoon koo yëkkati ak li ko suñu borom def xaadimul rasul liggéeykatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nangu ñu teg ko bépp natt boo xamante ni moom lañ daan teg yonent yi ngir mu mën a bokk sa ñoom ci zahir nag sëriñ bi dañ kaa si ak tubaab bi tuumaal ko ndax jamono yooyu de dañuy woon sëriñ bi dafay jixaat ndax te mbooloo mu bëri dañ ko doon yi si nangul ko lool mu jaaxal tubaab bi lool ci la ko convoqué ca Ndar naka loolu seriñ bi ba mu nanguwee ca la ko suñu borom xamal ni ko natt yii de mënuñu la ko tegee Touba ndaxte Touba aar nañ ko lool tey it sañ di nijaay Masuube mu ngi fi bépp nattu buñ la teg rek mu ñaanee rek suñu borom da koy teggil naka noonu sëriñ bi mu ngi waajee ci atum 10 août 1895 tombeek 18 safar 1313 ci atum gàddaay ngir liggéeyal lislaam kon nag maa ngi jël kàddu gi di ko jox soxna Ndeye Mary mu wax ñu sëriñ bi na la dul na la nekkee woon ca géej ga ak tubaab yi والسلام dañuy fas yéene wéyal rek fi mu jeexalee ci sëriñ bi ci yoonu géej bi lim fi daal sëriñ bi mu ngi génn këram atum 1313 ci 18 safar tombeeg le 10 août 1895 ginnaaw ba mu jotee ndigal boroomam samedi sa fajar la jëm yoonu ndar fas yéene faa dajeeg tubaab yi foofu sa jeewal foofu nag nee na bu fekkoon ab victoire la fay wane nee na am na ko fa ndax foofu la nootee iblis ak ñoñam ci boo yéree xasida bu ñuy wax ayaase mbindii lillaahu inda jeewali di nga ko fa gis foofu la demee ca ndar yëkkati fa islaam te ne yàlla rek mooy buur mun nañ nag foofu la natt yi tàmbalee ndax foofu lañ ko booleel gaynde gu ñu xiifal ñetti fan ngir rek mu lor sëriñ bi le 5 septembre 1895 si lañ ko àttee ne ko dañuy génn dëkk bi si lañ ko yóbboo Dakar foofu nag natt bi fa njëkk a dajeel mooy dañ koo dugal ci néeg bu lëndëm kuu néeg bu lëndëm kuruus xat ba pare bés dell ak ràmb booba mi ngi woor kooram sax dogagul bañ koy dugal dañ koo bumax te bañ ko bumaxee tànk bi njëkk dugg rab bi da koo jàm basar te mënu konti te mënu woon a tourner continuer rek la mënoon bam dayaatee beneen tànk bi rab bi da koo basar rab bi da koo jëm ba sar ci lañ ko fas yow bu Gabon nag le 21 septembre 1895 sëriñ bi nee na ci biir bato bi sax la xamee ni Gabon la jëm ndaxte foofu it dañ na fa natt yu métti lool ndax dañ koo jël sànni ko ci biti moom ak bagaasam ndox bi sedd bi sant bi yëpp di dal ci kawam foofu it boole nañ ko am ndaw soo xam ne mën nañ ni sax solul yére ngir rek bu lor sëriñ bi waaye suñu boroom mu jël na ko Fofu la sigilé l'islam nag ba faaw fofu la sigilé l'islam ba faaw ci ñent ràqa yu julli ci geej ga ngir rek bu ñafaat waxtu julleem ta baña togn tooñ ñoom yi di siba di siba bi lañ ko jëlé it dem ak mom Gabon dir jurom ñaari at bu daj fa lu metti lool bu daj fa lu metti lool nag waye teewul muy tag ak di woy yenen bi lu kenn mësul wax ci lañ ko mu def fa ñaari at ñu yóbbu ko làmbaar ne mu def fa ñaari weer ci lañ ko yóbboo nag Mayomba fu it la yàggee lool dajee fa lu métti it nag xamante ni ab àll la si boo xamante ni ñoom ci seen biir sax ñemewuñ ko àll bi foofu day taw guddi di taw bëccëg mut ya fa nekk ku màtt dangay nelaw te bu màttee fas dee suñu sëriñ bi dëkkee loolu juróomi at moom dong lépp ngir ñun bàyyi famille ngir ñun bàyyi léppam ngir ñun foofu it dajee na fa lu métti ndaxte boole nañ kook ay moykatu yàlla ci biir néeg suba ba ngoon sëriñ bu muñ ko dugal nañ ko ci gas nañ kàmb 30 mètres dugal ko ci boole nañ ko juróom ñaari nit yoo xamante ni ay ngir mu lor sëriñ bi dugal nañ ko ci fuur ngir lor ko sëriñ bi nee na liñ ko fa def yëpp ëpp naa nettali ci noonu la dëkkee waaye teewul di tagg ak di woy yonent bi foofu la xaal fi xasida yoo bari xam ni kenn mënu koo xayma bagaasa mi moom kese moo ko daan jàpp kenn daan ko ci jàppale ku ko daan jéem sax da ngay gis tubaab bi ni njey fexelee ba benn waay naa ñëw fekk ko mu yor bagage mi ni mu baree mu koy jéem a jàppale tubaab bi noonu lañ def ba daal koy tëjlu tubaab bi noonu lañuy def ba daat koy tëjlu ci la ko ci noonu la dëkkee nag ba suñu boroom xamal ni ko waxtu dellu jot na ci lañ ko jëlee yóbbu ko Sénégal le 11 novembre 1902 foofu la yoonu géej gi dem ci noonu nag ci noonu nag teg nañ ko fu la toll ci 286 natt yoo xamante ni benn bokk seeg moroomam ñu foog ni day noppalu ñu jël ko. <laughs> yóbbu ko résidence surveillée en Mauritanie juróom ñetti ñetti at de 1902 à 1907 ci lañ ko yóbboon ak Thiéyène de 1907 à 1912 ci lañ ko mujjee yóbbu Jurbel ba ni muy wuyu jee kon nag lii moo nekkoon kàddu yoo xamante ni suñu <coughs> sëriñ bi dajee naa moom ci loxo kon kon nag bokk nañu sant sëriñ bi te jéem koo liggéeyal moo gën yenn yi jéggal jërëjëf soxna Ndeye Marie di rafetlu kàddu yi daanaka bi sëriñ bi jugee ci géej gi bi mu nekkee Jurbel daan na séentu natt yi nga xamante ni moom lañ ko suñ boroom waroon a teg chaque 18 safar nag la ko daan séentu ba bis ba ñëwaatee mu koy séentu te la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal ni ko natt yi de Ahmadu jeex na mu ko big lool daal di mu bég lool fas yéene sant suñu boroom waaye nag mu ni lottu na ci lool ci la wax ni képp koo xamante ni sama mbég sa mbégte la bis bi bu ñëwatee nag ma santale yàlla sëriñ bi nag moo njëkk def màggal moo ñëwoon nuñ koy defee ci atum 18 safar 1339 yamook 4 septembre 1921 bisum màggal la bisum sant la bisum mbégte mbégte la bisum mberde la bisub jàmm la bisum fierté la ci bépp jullit rawatina ñun muriti ñu xam ne bu njëkk ba màggal ku nekk daanaka fa nga nekk nga ko daan defee waaye de sëñ Fallou moo woote ñu defee ko ci dëkk bu sell ba la waxtaankat ba doon wax rek sëñ Touba fi mu toll nii boo ko doon tëggal eh, ko ko combat stade ba dina fees lool billet dana jar lool waaye bi du mës a ndax du du mës am adversaire cey sëriñ Touba. maa ngi leen nuyu bu baax si kàddu yi waaye daa nekk ay kàddu fàttaliku ak kàddu soññee kon ni ko soxna yi waxee rek daanaka liggéey bi nii la ñu leen sax di gërëm. suñu thème nag mu ngi jëm kenn si njaboot Serigne Touba. mooy bu njëkk feeñ jamono ginaaw bi sëriñ bi jógee ci géej gi mu nekkoon nag jàmbaar ci yoonu murit di roykaay ci soxna yi muy soxna Aysatu Mbàkke yu gën koo xam ci soxna Astu Gaawaan bint Xaadim Rasuul moom nag mu ngi feeñ jamono ci 1904 ci weeru koor ca waa waajuram bu jigéen mu ngi tudd soxna Xadi Jatu Jóob ñu gën koo xam ci soxna xari gànnaar ndax li mu nekkoon Mauritanie jamono yu fa sëriñ bi nekkee soxna asu mi ngi jàng alxuraan ak leen ci xam-xam si ku ñuy wax sëriñ maam sàmba Jaaga Jóob ginnaaw loolu bi mu tollee si dem kër sëñ bi jox ko ku ñuy wax sëriñ Muhammadul Amin Touré mu nekk fa nag di jaamu yàlla liggéey ak topp kilifaam si noonu nag yàlla defal ko fa njaboot gu barkeer muy soxna Bousso Touré soxna Ami Touré ak sëriñ Modou Touré waaye si dogalub sunu borom ñeent ñett battam yooyu yëpp dañoo teelal laa ko waaye mu boole si gëm ak wakiilu si yàlla ak nangu ndogal tanaan nag bu ma kenn jooyal man damay sant yàlla ci ndogalam ndax sama xol bañ a bëgg keneen leneen lu dul yàlla soxna asu doonoon ku yaatu loolu tawe loolu bëgg alxuraan lool ak xasida yi fonkoon njaboot sëriñ bi daan leen toppatoo daan seeti doonoon ku am cër ci ñoom daan leen tarbiya daan leen liggéey lool si noonu sëriñ Fàllu Mbàkke mës naa wax doomam sëriñ Modou bu sojee ni ko soo toppee sa bàjjande soo fexee ba làq ngërëmam aajo yoo amati dina faju ne ko euh, nekkoon na ku daan yar jigéen ku daan yar jigéen ñi ci liggéeyu kër ak xamal leen àdduna góor ñi tamit daan leen tarbiya ci liggéey ak jàng xasida si noonu xasida mawaahibu ak si ndiidi bokkoon na si mu gënoon fonk te digal murid yi ñu koy jàng ku yàlla jagleeloon kafe Tuuba la woon ba daan saafaraal mbooleem jàngoro ak di faj ay aajo si ci kafe gi nee sëriñ Serigne Touba moo ko joxoon kafe gi ci loxo boppam nekkoon ku bëgg sëriñ bi ak tamit ku amoon taalibe ba ku daan ñëw si ku daan ñëw di ñaan mbiru àdduna mu ni la ñaan nekk taalibe de moo jara ñaan nekk taalibe moo jara ñaan màggal gi ñu koy defal si vingt cinq digg tabaski ñu ngi koy defee si ndigalu sëriñ bi ba ni mu làqoo ni mu génnee àdduna mu ngi génn àdduna atum 1984 ñu denc ko Touba pour wat leen benn rek boo xam ni euh, pour wane leen kenn xamul soxna si kenn xamul daal moom mooy kan dafa am bis benn mag expliqué ne dafa amoon benn soxna bu demoo buy tàng borom këram ni ko man de damaa bëgg a màggali mu ni ko soo demee de naa la may sa baat mu ni ko damay dem si naka noonu nag mu daal dem Touba dem kër soxna si mu nekk fa soxna si téye ko fa mu expliqué soxna si net wax ko li mu wax borom këram soxna si téye ko fa mu am bis nag soxna si yónni ko géej ni ko kaay nga wutali ma fa jën naka noonu ni mu demee wuti jën indi jën ci biir jën bi nag mu fekk fa ab seenub or mu ñëw di ko jox euh, soxna si soxna si ni ko ah lii de yaa ko moom téye ko rek mu téye ko mu dem ba yàgg na soxna si ni ko ah la nga dem ni mu ko yeewee nag dem mu ñëw fekk fa borom këram mu ñëw dugg nuyu ko faalewu ko mu ni ko dama nga woo say mbokk boo ñëwee ma mel la sa baat te nag seen ni ko yenn jikko yi nga xamante ni dafa yàq ay jëf yu baax lu ci mel ni rëy ngistal yéem jëf rambaaj ak bañeel ndax jikko yooyu dafa araam ci bépp mu kalaf te it ñu war koo wattandiku bu baax rëy nag bokk na si nga fonk sa bopp xeeb mbindeef yi bokk na si rëy tamit ngay bañ di nangu dëgg wala it nga yëkkati sa bopp ci kaw mbindeef yi yéem jëf nag mi ngi mel ni nga def benn jaamu yàlla moo xam dangaa julli wala nga jàng xasida wala nga def xeetu jaamu yàlla yi demee noonu ba jàpp ni li nga def ko lu kawe ci suñu boroom ngistal nag bokk na si nga def benn jëf ba noppi ngir jublu si ni ñi jox ko wàccuwaay rambaaj nag mu ngi mel ni ngay nettali ay wax pour yàq ay diggante te ñu war koo wattandiku bu baax ginnaaw loolu am na yenn jikko yoo nga xamante ni sëriñ bi mi koy dénk ndaw mi pour muy mën a sellal ak jaamu yàllaam lu ci mel ni sàkku xam-xam am kersa saxoo sant tey sellal tabe saxoo nopp ci lu amul njariñ lewet ca fa ngay sàkkoo xam-xam saxoo muñ sàmm lépp luy yàq ak tey nga am dégg-dégg digle na tamit ñuy saxoo jaamu yàlla fu ñu mën di nekk bokk na ci li mu dénk ndaw ñuy bañ di bari suñuy nelaw ak ay wax yu amul njariñ Tay di moytu lépp luy waral ab yàq digal nañu ñuy moytu ngistal rëy ak noonoo mi ngi ñuy dénk ñu dëggu tey wàkkiilu ci yàlla ak di toroxlu te gàttal suñuy mbébét mi ngi ñuy dénk it ci ñuy baril ay teggin ginnaaw loolu mi ngi dénk ndaw bi mu xool bu baax ku muy àndal muy bañ di ku ka nga kat mën na ko génne si juróomi jikko yóbbu ko si juróom bu si mën na la génne ci ngistal yóbbu la ci sellal bi ci topp mën na la génne ci rëy yóbbu la ci sellal yóbbu la ci toroxlu ak muñ ba ca topp mën na la génne ci sikki sàkk yóbbu la ci lu gën a wóor ba ca topp it mën na la génne ci noonoo yóbbu la ci laabire ba ca mujj nag mën na la génne ci bëgg lu lay lor yóbbu la ci bëgg lu lay amal njariñ mu dellu di ñu dénk ñu profitoo ci juróom lu njëkk seeni safaan bi ca njëkk mooy ñu profité ci suñu ndaw balaa màgget di ñëw ñu bañ a jël suñu ndaw di ko def si ay caaxaan ba màgget bëgg di jaamu yàlla suñu nekkee ndaw ñu siy profité di def ay jëf yu baax balaa màgget di ñëw ñaareel bi nag ñu profité ci suñu wér balaa tawat di ñu dab suñu wéree ñu siy gaawantu di def ay jëf yu baax di jaamu yàlla balaa tële di ñu dab ñetteel ba nag ñu profité ci suñu am-am balaa ko ñàkk di ñëw su la yàlla xéewalee nga am alal nga siy dimbali néew di doole yi te xam ni kat loolu la yàlla jox nekkul pour yow waaye pour nit ñi la peut-être dakaa jaarale si yow rek ñu gën see bàyyi xel bu baax bi ci topp nag ñu profité ci suñu am jot balaa soxla yi di ñëw bi ci mujj mooy ñu profité ci suñu dund balaa dee di ñëw fekk ñoo ngi dund ñuy profité di def ay jëf yu baax balaa dee di ñëw ndaxte kat foo fa nga jëm lépp loo fa deful rek doo ko fa fekk lii nag mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon muy leen lenn li sëriñ bi dénkaan dénk ndaw ñi ci téere bi di tasaw di si xaar di ci soññi sama bopp ak mbokk taalibe ñu gën cee bàyyi xel wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam kam na la wax xëy di wax ne li produit tasaw di si xaar la ak sant na ak sëriñ bi ndaxte liggéey bi toll na foo xam ni hmm, liggéey bi toll na foo xam ni lii rek lañ mënal tasara sa xaal ay ndaw yu toog di ay xale yu ndaw ñenn di soññe ci taxawaayu sëriñ bi ak ci xasidaam yi te soññewul ci lenn du tasar si xaar nga xam ne sëriñ bi da koo jàngale ngir ndaw ñi ngir ñoom ñi daayira bi tamit tudd tasar si xaar mu nekk xasida goo xam ni li tàmbalee ci alhamdulilahi gi ba ci subhaana gi ba kon kun maan gi képp kuy ndaw te toog fii war nga koo xam ndax daayira bi noonu la tudd ñu ñoom soññ nañ leen ci te ay ndaw lañ tey ay soxna lañ it di ñaan képp ku fi toog ci soññe yam joxe na la jariñ ba màggalu déwén ba na a añëwaat ci moom lim la lim la soññ ci ngay jariñoo képp wallaahi lépp loo bëgg di nga ko kon nañu waat xel jotaay bi ndaxte dundal safar la ñu woote sëriñ bi vendredi daa fanaanee waxtaan ak njabootam ba xëy gaaw dem ci tukki bi kon ñun bu ñu dee dundal guddi gi nañ koy dundal ci xasida ak alxuraan ndaxte moom ci loolu la ñu woo ndaxte dafa am benn waay ju doon wax ni kan la sëriñ bi woo Touba nañ ko xam ba pare bala ngaa xam kan la sëriñ bi woo nañ xam lan la sëriñ bi woote kon ñun ñu fi xam nañ li sëriñ bi woote muy alxuraan ak xasida kon ci niñ koy dundalee ak di ko waxtaanee di kenn sëriñ bi di jëf ci sëriñ bi di wax ci sëriñ bi ginnaaw bi ñu génnee suñu ñàkk def ci xidma def ci njariñ joxe ñam nit ñi lekk rek kenn xamul ne mu toll Serigne Fall nee na ëllëg dinañ xam fu Baye Fall di rawee ñu ne ko Serigne fu Baye Fall di rawee mu ne joxe ñam képp te Baye Fall lenn la xam mooy joxe ñam weeru koor bu jotee ñu ne lu tax Baye Fall yi ñu woor ñu dañuy togg ay ndogu di ko joxe ngir yàlla ak yonent bi kon bu gi nañ ko dundal ci liy des ndaxte joxe nañ ñam ba pare bu ko defee dañoo tënkoon kuréel gi daal di doxal waaye dañuy continuer cérémonie bi. ndaxte li ñuy waxtaan gi Sëñ Tuubaa ñun dañoo doylu doyluñu dañoo bëgg sam papa daal di ñëw joxewaat ay soññe jox waxtaan ci sëriñ ba mu saf sàpp fii dafa war a saf sàpp sëriñ bi waru koo génn warul génn lenn lu dul sëriñ bi bu ñëwee xasida yi dolleeku mbir mi daal di continuer bisimilah jëwri mën ngaa yegg si fi te kaddom moy gëna kawé ñun ñëpp suñu kaddu ndax moom mooy jëwriñu mbol ndax kenn ku nekk dana la laaj mbolom nga jité won ci lan nga leen jité won kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an raa'in te moom moom kat mbuj ay ni ko waxee ngir ñu mottali cérémonie bi ci lii xale yi doon wax léegi tu tànk ñu am luñ ci saraa rek ndax li ñu wax leer na ba noppi amatul lenn luñ ci war a leeral waaye ñaar ñi mujjee wax rek laay wax ku ci nekk ñaari baat muy kii mujje wax te li wax lépp mu nekk ci buntub tasawur sixaar ci bunt bu mujj ba baax baabu ihsaan te loolu Serigne tubaa dénkaane foofu xaddis la bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax waaye Serigne Touba xam na ne woy moo gën a neex a wokkal ci min ab naa i zaman moom ma ko wax mokkal moo gën a yomb ci joomi jamonoom moo tax mu jël xaddis yi di ko woy ngir doomi jamonoom gën ko mën a mokkal mooy na ngeen wattandiku juróom laataa juróom kooku xaddis bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax la mu leelaral ñu ko bu baax a baax kon juróom yooyu nga xam ne wax na ko bu nu ko dégg ci jataay bi rek comme ni ko maam Xaadim Ndiir waxe léegi dégg ko ci jataay mu neex ñu daan jug faxasu ni cérémonie bi neex na leçon la buñ ñu jox leçon boobu nag dañ koo war a jël mu doon comprimé boo xam ni ku ci amoon ci feebar yooyu benn jàppal ni comprimé bi moo lay beneen bi toog wax nañu ci wàllu àndandoo ci biir waxtaanam te sëriñ bi waxoon na na tànn sa àndandoo lu njëkk nga ànd ak ñoom loolu wax na ko ci si sixaar wax na ko ci nadul xadal xaj na ngay tànn say àndandoo ñu njëkk ngay ànd ngay ànd ak ñoom waxtab rijaala qabla suuxa bi wala tusaaibu xumran aw saraq wax na ko ci masaliku jinaan nit kon loolu mu doon wax nun ci guddi gii ñu ko joxe tey nga xam ni guddi la goo xam ni guddi bëccëg la goo xam ni jëm ci guddi gi guddi gu daw yaram la bëccëg bi la sëriñ bi génne woon waaye guddi tey gi kon tey dañu naan sëriñ Tuubaa ma nga fanaanoon jeewal ngir dundal guddi gi kon loolu tamit war nañ ko ci bàyyi wàll xel Serigne Touba du 18 safar bi rek waaye bu ñu xoolee 18 safar ci guddi dafa dem jeewal fa dundale woon guddi gi ci lan la ko doon dundale ci ay jaamu yàlla kon bu ñu àndee sant Serigne Touba santale ko boromam ci guddi 10 bëccëgu 18 safar guddi gi ñuy ko koy dundalaat dañuy jàpp ni ñu koy roy Serigne ca la mu defoon ca tund jeewal nag nan ko bàyyi xel baaxal leçon yi ñu yor nañ ko jàpp beneen bi toog muy soxna Astou Gawane képp ku jigéen fii ci réew mi jaratul ngay wuti jëggan ni saw rey waaye ndax dafa nañ la xut dox boo xam ne mi ngi sa wet nga xam ne danga man nga ni fii la ndeyam dëkk fii la baayam dëkk fii la fii la fii fii la faatoo fii lañ ko rob mu nekk jigéen boo xam ne jigéen bu exemplaire la woon ci wàllu liggéey ci wàllu yar kii dem bay yar ay góor ak i jigéen kenn ku nekk moo leen tàggat ci wàllu liggéey di la tàggat sa diggante ak sa borom boobu jigéen xam nga ne jigéen bu am roy waa jigéen bu am taxawaay la jigéen la boo xam ne jigéen bu ñu war roy la muy ñaar yooyu nga xam ne maanaam moom la ñu mujj wax mu xam loo xam ne no commentaire la war a doon ndax niñ ko waxee leer na nañ amatul leen ni ko war a wax mais ma maam Xaadim mii taxaw léegi wax na wax ju am solo mooy kon ñii ko doon wax ay produit produits trésor sixaar lañ jàngewuñ ko fenn ci daara ji lañ ko jànge kon nag la ca des mooy yàlla may ñu ñu jëm ko jëfee ci barke Cheikh Ahmadou Bamba yàlla nañu Serigne Touba kattanal. ba lii ñu fi dégg muy ñëpp nag ñu jëm ko jëfee ndax tasawur sixaar dafa am benn kilifa xam naa tur wi jarul ma ko tudd ci kilifa yi yoonu Tijaan la dëkk fii soriwul dara dafa mas a wax maam Cerno tasawur sixaar de war nañoo soppi tur wi laataa muy gën a tasaaroo bañu bañ a yaakaar ne ndaw rek moo ko moom ndax buñ ko bu bu borom xam-xam gisee da yaakaar ndaw rek moo ci war a jëriñu te téere bi kat mag mën na ci jëriñu gone mën na ci jaww jëriñu maam Thierno ni ko yow de foogaan naa ne xam nga sëriñ bi waaye ku réeru sëriñ bi nga mu ne ko xanaa xamoo ne ku dul sëriñ Touba ndaw nga mu ne ko ku dul sëriñ Touba sëriñ Touba dugal na la ci sixaar bii kon sëriñ Touba rek mooy mag kon xasida gi su ndaw ñi rek ñoo ko war a jëriñu waaye mag ak ndaw ñëpp ñoo ko jëriñ ñëpp mën a ñoo nag ci daj dëpp nga xam ni moo yëngal xol yëpp nga xam ni mooy rexlatu cheikh yi fil baxri ilal baxri boobu mhm. maanaam tukkib sëriñ bi ci biir géej gi nga xam ni ñaar ñi ko njëkk a wax xol bu fi nekk te yëg dara wala nga am leer am nga loo yëg sa diggante ak sëriñ bi mhm. ndax taarixal nañ sunu sëriñ bi ndax daa mënta ñàkk rek ci nit maanaam ku ñu ni nit la muy dund ñu ne am na nday am baay ñu ne kii mooy ndeyam kii mooy baayam fii la juddoo fii la jàng fii la nangam waaye loolu sabab la ci sëriñ bi maanaam sabab la rek ci ak dundam ndax bu jóge woon asamaan ak suuf ñu ne ko cëpp ci kaw suuf kon nit duñ mën a jëriñoo ci moom loolu mooy sab loolu li ñu ko wutal ndey wutal ko bàyyi noonu ñuy noonu ñu ñuy jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ndayam ay nangam bàyyi may nangam fii la juddoo fii la faatoo xam nga nii loolu sabab la ci ab dundam waaye ku ne xam na ne yonent bi ku xam na ne yonent bi ndayam bi ko jur bàyyam bi ko jur moo leen mag ñoom moom miñ ko ñoom moom ñoom ñi ko jur moom moo tax ñu bind ndax law laahu maa xuliqat samsun wala xumul su dul woon yonent bi du bind jant bi du jund weer wi du jund nit du jund bind milaaka kon yonent bi waajuram yooyu yonent bi moo taxoon ñoom ñu bind leen kon sabab la rek buñ jaarale ci ñoom waaye waaye dafa mënta ñàkk ñu ne kii mooy ndeyam kii mooy baayam loolu ko dal na moo dal Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa wax ni ayaati min ayaati laay damaa bokk ci kéemtaani sunu borom ñoom ñu wax ko fii taari xal ñu ko Mamor Anta Sali niñ ko waxee noonu la deme mooy waajuram bu góor soxna Jaara mooy waajuram bu jigéen Mbakke Bawol la gën a àjjana ci 1970 ci atou gàddaay yi depuis 1852 wala 1953 bo ci wax baax na ndax ati yi dañuy duggante jàng ci tafsir Mbàkke Ndumbe jang ci nijaayam serigne bu sobe fana bi mi ag khatsam yi ci la genn nak waaju eh, ci la serigne Mbàkke serigne Mbàkke serigne mu sobe genn aduna ñu wat ko bayam mu àggaleel ko am jangam jàngal ko mboolem lu xeeti xam-xam ak wàllu tarbiya waaye ci biir daara ji Sëñ Tuubaa wane na ni moom moom kéemtaan la ci kéemtaani rasulullah ndax dem na bay taalif ay téere yoo xam ne téere xam-xam yu bàyyi waroon a jéggaani ñëw di ko jàngale waaye moom Sëñ moo ko taalif lu demee ni bidaayatul hidaaya bi nga xam ne moom euh, ku ne xam na ni ci walu tasuf ak luy defal ruh doomu adama mom seigne Touba moko talif seigne Touba ce mamour Anta Sali jàngal ko njabotam Cheikh choro ak seigne euh, Balla choro jangal na len ko ñom téere yi ba mujj yi nga xamene manam lañ daan waroon di jégali seigne Touba da koy jang bind ko talif ko mamour Anta Sali di ko ci fi daara ji kon kooku kon bon nañu ni lenen la ndax bamu ne sina ani dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri loolu da woni seigne Touba di ñi jangal ci ay lef waye sabab la ndax suñ njëkk yëgoon mu jógee asamaan ni cëpp àndaale xam-xamam kenn du mën a jëriñ ci moom waaye loolu suñu borom moo nam ci moom loolu diir bu gàtt 1881 ba waajuram bi génn àdduna ni ko soxla si wax léegi 1800 1882 ca déwénte daa dellu si rek yonent bi xamal ko ne ko bis ni tey nag jàng ak jàngale wàcc na la yaral sa gars yi ci himma yóbbu leen ñu dem ca hitte yu kawe yi loolu taxoon sëñ Tuubaa daal di woote wooteem bu siiw boobu ni nga ko waxee léegi ci bëccëg boo xamee ni bëccëgu defe naa ñaar fukki fan ci weeru koor bi ñu laylu xadra ba ci suba ga mu woote woote mburu boobu daal di wax alaaman xasiba daal di taalumi képp koo xam ni jàng ak jàngale moo la taxoon ñëw fal ya fal yazab shaa na nga dem fu la soob sama borom xamal na ma ni tey jii ربي أصحابك بالإمة ولا تربيهم بدرس فقط نغا يرسى طالبي جي همة أكال تبجلنا تي أم جانجل كسر سنجوبا بيم كو وخي دوكو نا سي بير كيسام نانا دير بي كين واخول ملني اي ارمل لا نيك كين كو نيك دي خول سا موروم لو تولوك لو تاي تاي فيس xaar ko ba mu sedd nga tas ko ba séddale ko kër gi ne na selaw mel ni néew moo fi def mooy fat kenn ku nekk di xool sa morom waaye Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nee na niis tuuti rek ñu gis kenn ku nekk ka fa sàmmoon ab xeram daal di fekki ab xeram ni man jàng de moo ma fi indi woon gëm naa lii de waaye man xam-xam moom fi taxul ñëw sama waajur bi ma yebal loolu taxul daal di jéggati dem ñii indi seenu mbaar kenn ku indi woon sekkatam kenn ku nekk buddi lam amoon ci kër gi kër gi ni selaw ba mu des juróom-ñaari nit moo tax borom téere wax ne fa sahabal fa sahabal jullu kullu li ëpp ca ca ña ca ñafa demoon nañu waaye lu néew ca mbooloo ma fa des juróom-ñaari nit yooyu lim nañ ñu ko limal nañu ko fii léegi waaye Serigne Touba nee kuréel bu ndaw boobu ci la taxawale li nga xam ni mooy yoonu murid diir bu gàtt ñu dox ko mu mat ñeent fukki nit wala ñeent fukk ak benn ci maam Cheikh bi mu jébbaloo yoonu mu di tàmbale takk nag fu nekk waaye di fa dégg ñun ñuy dégg Serigne bi Serigne Touba Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba ji. Hmm. dema dema dem ba Serigne tubaa xataay bi mu leen xatal ñoom ñi nga xam ne mooy ay ay mbokkam. Hmm. Serigne tubaa ay mbokkam ñoo ko njëkk a xeex. Serigne Touba ay mbokkam ñoo ko njëkk doon xeex ñi mu bokkal sant miin tey ñoom ñoo ko doon njëkk dee xeex jàmbur yi soog cee bokk. ceddo yi ndax looba dañoo amoon fiiraange seen diggante ak Serigne bi. Hmm. ci la ñuy ci la Serigne tubaa nag daal di génn foofu daal di sem fu ñuy Euh, Mbacke euh, sañc daaru salaam ci la sañc daaru salaam ci ni ko soxna si waxee léegi diir bu gàtt ci 1306 mu dëppoo ak 1880 1886 86 88 mu sañc Touba diir bu gàtt mu dem daaru Khoudoss gii tey daaru Khoudoss ni ko soxna si waxee daaru Khoudoss mooy pacte bi nga xam ne fële sëñ Touba signé li nga xam ne mooy tukkeem bu màgg bi moo tax daaru xudóos ku ne war na fay dem di xam bërëb boobu fan la sëñ Tuubaa doon duggee xalwatu dafa am ñaari ñu boole nag sëñ bi muy xalwatu bi ak yi nga xam mooy iktikaaf xalwatu bi fa la sëñ Tuubaa doon tudde mooy boo duggee fi ñuy wax bayti foofu la sëñ Tuubaa doon duggee xalwatu di fa déyaale ak boromam ngir lan ngir xam ci boppam moom ci ban maqaama la war a nekk waaye nag iktikaaf mi ngi ko defee ci jàkkay daaru xudóos mm-hmm. googu moom boo demee tey mooy jàkk jooju jàkkaloo bayti foofu la Sëñ Tuubaa def woon iktikaaf mhm. ci weeru koor lañ koy def mhm. ci fukki fan yi mujj yi waaye Sëñ Tuubaa mi ko def ci guddi fukki fan ak ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ca la tomee ci guddi leen xadar bët set di ñaar fukki ñaar fukki fan ya <coughs> ci bët set di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ndax dañoo leen xadar ba ci suba ga mhm. ñu xamal ko ni ko maanaam da ngay génn dëkk bi lim na ko léegi dama ci bañ a jaaraat dama am fu mu jëm rek ci la génn nag daal di dem dëkk bu ñuy wax Mbacke ba Bari Mbacké Bari Sëñ sancoon na ko ngir tuxu jiitu mu fay dem jiitu mu fay dem sancoon na dëkk ba ngir daw mbooloo mi nga xam ne maanaam ndax booba Tuubaa nit ñi tàmbali ñëw dafa dëkk nit ñi tàmbalee bari Sëñ Tuubaa dafay sanc dëkk Mbacké Bari ndax ñaar tax na benn mooy fa la fa la fa la ndax maam ah, maam maam Omar Fouti Tall fa la feeñale woon ay mbiram nee na loolu bokk na tax mu dëkk euh, bëgg bëgg dëkk boobu bi mu bi mu sañeef bi mu ko bëggee sanc ab diir ci la bataaxal boobu ñëw nag ñu xamal nañu jàpp sëriñ bi ci ñu xamal ko sa sa waajur sa bu ñuy wax sëñ bu soobee dina génn àdduna da danga da génn dëkk bi ci la génn dëkk daal dem sànc dëkk boobu di Mbacké Bari Mbacké Bari nag ñetti weer ñeenti weer dafa def Joal dafa def Zuli Xëta Zuli Xëta Muharram Safar mu ñëw ñu daal ko jàpp yóbbu ci tukkeem bu mag boobu tukki boobu gone yi doon wax léegi nga xam ne Serigne Touba na li tax ma dem ci tukki bi ñett rek moo ko waral mooy zababu xaybati anna laa arada an analu min ujaa wa an akono xaadiman fi daw mi an akono shafin li nee na ñett rek moo tax ma takk dara boo xam ni kenn dootu ko takk ma ko xasee takk beneen bi def ma nekk koo xam ne damay liggéey damay nekk koo damay ramu sama njëb sama sama xeeti jamono waaye ma nekk koo xam ni damay damay nekk xaadimu rasul nga xam ni su ma ko xasee takk kenn dootu ko takk ci loolee nag ñu teg ko ni ko loolu ngir nga koo am da ngay sa dëkk bi ñu teg la ay natt yoo xam ni donc sa biiri noonu ngay nekk luñ la mën di teg doon ni ah luñ la mën di teg doo too ko xàcc te boo ko ñu alag la alag mboolem koo xam ne yaakaar la sëñ Tuubaa ne bu ñu utilisé ruugi sama jom dëkkunu ko moo tax ab jur ab ab murit lu war a am jom ndax sëñ Tuubaa jom ak fit ak ngor moo tax mu am li mu am de ndax dafa ne suñ ma tëjalee ruugi luñ ma di teg sama jom dëkkunu tubaab bi ne ko acci bisimilah ñu dem sëñ Tuubaa ni ko soxna Xadi waxee léegi nee na ndar gi nga xam ne dem naa fa daj naa fa loo xamante ni nii ci luy génne ak ruu nee na rus naa ko nitili ngir li nga xam ne sama borom sama teggin ji ma am sama diggante ak sama wa laqaytu fii tilkal muddati fii tilkal jazirati maa laa ashkuru abada loolu suñ waaw waaye li tarbatil hayyi lazi laysa yaqul ndax dafa nekk ak teggin xam ne dafa nekk sama diggante ak sama borom bi nga xam ne mooy borom dund gi nga xam ne bu faatu kon sëñ Tuubaa na Ndar lu jiitu ni ko yóbbu ndax def na fa 38 jours la fa def 38 jours ci seen conseil bu jeng bu bu bu nafeq boobu ci lañ tuumaale sëñ Touba ni ko dañ koy exiler waaye ñu ban ban ban ban ban ban preuve moo tax ñu exiler sëñ Touba lan la sëñ bañ ko exiler waxuñu ko waxuñu lan la sabab bi taxit ñu yóbbu sëñ Touba waaye dañ woon dañu bëgg confrérie mouride bii Cheikh Ahmadou Bamba taal fii ci réew mi dañ koo bëgg a fay moo tax ñu bëgg ko exiler mm-hmm. loolu rek la ñu waxoon ci li seen conseil boobu daal di ko yóbbu bi ñu ko yéenee Dakar lañ ko jëkk a yóbbu ni ko soxna Xadi waxe léegi moo ko nettalil boppam ndax sëñ Tuubaa bi muy dem àndut kenn ay noonam la àndaloon noonam yi ma àndaloon kenn daawul wax ni lii la def ci lu baax toujours ay défauts lañ doon xool waaye alhamdulilah rabbil alamin sëñ Tuubaa nee na sama mboor képp ku ma yaakaar mën nga ko topp waaye doo jóge si leen loo xam ne la gàcceel moom moo ànd ak tubaab bi tubaab bi mënut gis ben défaut bu mu bindal sëñ Tuubaa ndax bu ko gisoon ne ko bind ko yóbboo Ndakaaru ci seen kaso bu xat boobu wax léegi moo ko nettali sëñ Amsatu Jaxate ni ko Amsatu day bu Ndakaaru googu de saa bu ma fanaa saa boo sama xel demee ci Ndakaaru sama xel bëgg ma ma féetal jihaad waaye yeneen ci bu ma mënaan dalal dalal dalal ndax isa zakartu zalika al mabita mooy su ma fàttali ko boo belee fanaan te foofu rek sëñ Tuubaa waxee ni wax wax joo xam ni su ma nen jut jël jug jël fital day jihaad ndakaar rek la ko mën kon sëñ Tuubaa ku sonnoon ndakaaru moo tax waa ndakaaru du ñu mën a nekk ci jàmm du ñu mën a ci salaam isa zakartu zalika ma mabita wa zalika al amir ak boobee bale boobee le buur boobee le amir boobee le njiit nga xam ne moo ma tay la woon ba dugal ma ci ne googu tarat ila jihaadi bil armaayi nafsi walakin zaba adil maayi du ma bëgg lu dul dem jihaad waaye yonent bi sala al maayi moo may wax naa ma dalal dalal dalal boo ko netti si am satu ne la ko am satu nekk bu xat moom ji wax de bañ ma ca dugalee dañ maa dama dama damaa wàccee jóge ndar indaale koor bi ma ñëwee indaale koor maa ngi yàkkamte fu ma dalloo ba bëgg a dog sama koor bi nis tuut ma toog rek as ndaw da as as askatti daal di ñëw daal di ne ma kaay wuyu ma ànd ak moom dox mu dox dox dox ba ci benn daal di këf sama kaala daal di puqati kaala bi puqati kaamil bi ma yoroon sumil dàll yi mu summi dàll yi mu ne ko